صلاة الذي في كل زار وفي سفر حماني على ماهم مع الحس والسفر man damaa xam diggante président Abdoulaye Wade ak président Macky Sall démb tey door a ñëw Ibrahima Diop bi mën na ma seede président Macky Sall bi mu nekk premier ministre 2004 fekk booba problème bu Ndindi am mooy président Wade waroon na ñëw Ndindi mu am jafe-jafe ñu yëg ne jafe-jafe yooyu man mën naa cee dox ay tànk boobu maître Aliou Badji moo nekkoon conseiller soo conseiller spécial Ibrahima Mohamed bu ñu joon nekkoon directeur cabinet ñu ñëw ànd ak Ibrahima jël si ma minuit sama kër ma ñëw fa ndeysaan mu recevoir ma booba ñu ngi ci euh, Petit Palais waaw primature bi waaw ñu waxtaan ca mu laaj ma lan moo xew ma waxtaan ñu waxtaan ba yàlla dogal euh, situation yooyu réglé ci noonu la ñu fasante woon rek man ak moom booba lañ jaxasoo woon man ak moom xam bu baax fi mu teg président Abdoulaye Wade xamit bu baax fi ko président Abdoulaye Wade teg te man ma am ci ay preuve yu bëree bari moo tax bi yàlla dugalee li am am ma gis diggante bi li ci xew-xew mu metti ma parce que xamoon démb yoona boo xamee tey fekk boo xamee dem gis tey bu tey ñaawee démb bu rafetoon rek da nga am lu kon nag looloo waraloon ma doon ci dox aka wax ak ak di ci ñaan ba yàlla dogal loolu suñu boom bi def ko ma di leen ci félicité ñoom ñaar di ci félicité président Macky Sall bi nga xam ne moo jiite réew mi jiite Sénégal yëpp di nga xamante ne bii moo nekk mën naa ne bàyyi la ci moom nekkoon ancien président de la République ba pare am lu leen boole loo ne moo gën a for yooyu yëpp mooy lan mooy ñoom ñaar ñoo bokk doon taalibe Serigne Touba ndax man mii wax ak yéen man ma président Macky Sall bi muy jébbalu ci alaaj Baara di yeesal ak njëbbalam maa ngi moom ñoo àndoon kon loolu mën naa seede ak njëbbalam xam naa it booba léegi mi ngi koy doxal ci ni mu ko war a doxalee kon nag euh, Serigne Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba bu leen wooyee ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw mu diggee leen gëm naa ne ku ci nekk loo jàppoon loo jàppoon da nga ko bàyyi ngir jëfe ndigal ba jàpp naa ne na ma gisee woon jotaay xam naa ne ku ci nekk loolu yàkkamti woon nga ko ndax adduna yàlla yàlla yàllaa ko tëddee noonu nit ak bàyyi da ngay gis ne waxtu nekk bàyyi ak doom sax ñoo ñoo gën a ci luy gën a luy jege luy jege te dañuy jàppante waaye nag jàppante bu amee jaxasoo am juboo mën naa am tey damay wax ne ndégam réew yi nga xamante bi foofu la ay guerre civile di am ba ay junni junni ñu di fa dee ñooy wëlbatiku àndandoon juboo fàtte lépp asamaak loo xamante ni bii daanaka mën naa ne dara lu fi ñaaw lu lu lu am solo amu ci kon nag loolo waraloon bi li amee ma bëgg ci lool boo wax ne maa ngi mettre à garde mboolem ñi xam ne ñoo jege ñoo ànd ak président Macky ak ñi xam ne ñoo ñoo jege président Abdoulaye Wade ñu fexee ne jàmm ji nga xamante ni moom la Cheikh Mamadou Mountakha jëmba ci seen diggante nañ nañ ànd ci suuxat ko te bañ koo yàq ndax lii seen boole gi booleeg baatin la ndax Serigne Cheikh Mamadou Mountakha mooy Serigne Touba ci kaw suuf kooku nag lu mu samp ku bëgg am jàmm na nga dëgëral samp boobu waaye ku ko bëgg a samp it nekk ci jafe-jafe kon looloo waral ñu amee ñu gis ko alhamdulilah président Macky Sall it ku xam ne ne gis ngeen jéego yi mu ci def ndax gis ngeen fa saasa euh, la ca topp muy libération Khalifa Sall gis ngeen la ci topp muy éviter président Abdoulaye Wade mu ñëw ca palais ba kon nag loolu bég mbégte la moo xamante ni bii mbégte mu rëy rëy rëy la di di leen di ko féliciter leen encourager rek parce que it Sénégal loolu lañ soxla parce que it euh, réew mu mën a doon munul sukkandiku ci développement sans mu mu suunu ci jàmm te jàmm moom defe naa ne moo gën lépp moo gën àdduna ak li ci biiram te sëñ Tuubaa waxoon ne ne jàmm gisul lu ko gën ci àdduna gisul lu ko gën ci àllaaxira kon nag te gis na ne bi loolu amee ba tey ku waxaloo yàlla xam ne dafa la dafa am stabilité boo xam ne ku seetlu xam nga ne am na stabilité bu am am na ñoo xam ne nag xëy na loolu arrangé wu leen waaye nag li am solo daal mooy nit day bëgg lu baax nit day bëgg lu baax te jàpp naa ne ku ci nekk rek boo sa doo doo doo ko sa waajur ku ci nekk boo sañoon da ngay jubóog jubóog sa sa sa waajur kon nag ba nga xamante bi yàlla doxale na ko ni ñu ñaan suñu borom tabaaraka taala jubóogu yàlla def ko mu gën a sax ba mu ne mu sax sax boo xamante ni bi dana nekk intérêt Sénégal dana nekk njariñu Sénégal te gëm nañ ne bu loolu amee njariñ li dana dana am te njariñ li bu amee Sénégal yëpp danañ ko yëg Cheikh Bamba salaatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar والعسى والسفر